ci sapeur pompier bi ñu yegsee fii gis nañ fi lu tiis maa ngi dend nii ak chauffeur euh, bi doon dawal ligne 65 bi jógee Kounoune jëmoon Colobane euh, yaboon ay nit bi mu yegsee ba fii yaakaar naa di xaar client non client da doon wàcc quoi. client di wàcc demandé arrêt bon. client demandé arrêt bi client bi demandé arrêt am lu toll ci juróom-ñaari nit ñu ñëw wër kaar bi yor cocktail molotov sànni ko ci ay sénégalais ni ñoom ba ñaar ñàkk seen bakken ñuy massawu seen ay njaboot di ñaanal yàlla mu fëgg bopp ñi ci am ay gaañu gaañu muy ay lakk-lakk yu metti toll ci juróomi nit ma wax ni li xew fii nii tey waxoon naa ci deux mille vingt ni dañuy faral di gis nañ léegi senegal ni acte terroriste am na fi terrorisme am na fi bi ma ko waxee nit ñu bari yëkkati seen kàddu di am opinion contraire di maanaam ànduñu woon ci xalaat boobu waaye li ñu gis nii tey amul kenn ku mën a werante ni lii acte terroriste la lii attentat la ndaxte fekk ay doomu sénégalais yu dugg ci bus jóge kunun jëm Colobane amuñu benn toor bu ñu def lu dul jug di doxi seen ay soxla nga jël cocktail molotov sànni ko ci kaar bu yàpp ay nit c'est un acte et c'est un loolu nag maa ngi wax ni l'État ne laissera pas faire te képp koo xamante ni def nga lu mel nii wala sa xalaat nekk ci def lu mel nii na nga jàpp ni yoon dina jëflanteeg yow te état bi dina def li mu war a def yépp ngir teg la loxo jébbal la yoon ñu atte la comme ni ñuy attee un criminel loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko wax ci wolof di massawu euh, suñu mbokk chauffeur bi di Abdoulaye jóg leeral nañu léegi ni mbir bi demee di massawu tamit waa AFTU yëpp waaye di massawu même ñi nga xamante ni dañ ci gaañu bi ñu ñëwee am ñenn ñi ñu fekk leen ñu jot a dem loolu mooy kàddu yi ma bëggoon yëkkati ci turu njiitu réew mi ak ci turu gouvernement bi yëpp di wax ni euh, gis nañ taxawaayu force de défense et de sécurité yi ma leen di sargal bu baax muy gendarmerie muy police muy armée muy sapeur pompier ku ci nekk ci wàllu maintien de l'ordre ak ci ànd ak ñiy rétablir ordre wala ñu koy maintenir gis nañ lu rafet lu baax li nga xamante ni moom lañ koy defee te noonu lañ ko nar a wéyalee képp ku yaakaar nag ni fii ci Sénégal mun nga tiital nit wala mun nga ko xoqatal da ngay nax sa bopp ndaxte réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ci bokk yem ku ci nekk da nga ci am cër waaye cër boobu yaa ngi koy tibbee ci li nga xamante ni mooy loi yaa ngi koy tibbee ci li nga xamante ni moom mooy règlement kenn ci ñun à tàmbali par gouvernement bi amoo droit wàcc yoon bi ñeneen ñi nga xamante ni tamit ñoom la ñu seqal réew mi amul kenn ku ci war a wàcc yoon waaye wax ni danga am lu la metti wala àndoo ci dara nga fekk ay doomu sénégalais comme yow amaana ñi nga jël cocktail molotov sànni ko ci biir oto bi ñu yore amaana am na ñoo xamante ni ñii ñi ngi ànd ak parti politique bu nekk si majorité amaana ñi ngi ànd ak parti politique bu nekk si opposition waaye yow sa yoon nekku ci nga ñëw fekk oto bu yàpp ay nit ba fees sa xel nekkul ci dara sa xel amul dara lu mu jàpp lu dul jël cocktail molotov sànni ko ci biir oto boo xam ne ay doomu sénégalais ni yow ñoo ci nekk ba noppi ñi ci génn wala ñi nga fekk ci biir nga sàcc seen ay téléphone sàcc seen xaalis sa c'est un acte terroriste et l'État ne laissera pas faire d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont

que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement, les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique ce qu'on veut à ses autres concitoyens de religion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, euh, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son excellence monsieur le président de la ma Macky Sall à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop de son receveur mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille AFTU je vous remercie nga ñëwee ba fii nii si passerelle bi nii am client bu demandé arrêt ma taxaw di ko wàccee bon bi ma taxawee dama jékki-jékki rek gis ñaari deux personnes génn yor ay xeer ay ngandi xeer ah léegi taxaw jàkkaaroo man face à face dan may saaga bon bi ñuy saaga peut-être maa ngi gis beneen gain bi yor flamme bi quoi taxawee à côté. mooy cocktail bi mais mi ngi tàkk flamme quoi mais man booba man comprendre uma ben ay sept lan six bon bi client bi wàccee nag si la la benn si la copain bi profité daal di lancé affaire bi si biir oto bi bi mu ko lancé si sama tànk bi fii nii si pédale bi la ko lancé moom moo ma def nii sax bi mu ko lancé noonu nag si la affaire bi daf flamme bi mu falaamee bon client yi di profité di jaar si fenêtre di wàcc ñoom ñu ñu daal di pincé porte bële ndax ay ponkal lan danoo njool ay ponkal lan te danoo camouflé moom seen bët rek moo lay jox image te bu ñu waxee yaa ngi koy dégg ñu pincé porte bi porte bi ubbeeku am ñu daal jot dugg si biir xam naa jël ay téléphone ak ay saak man bi ma wàccee maa leen seen bi nuy bi ñuy yéegaat passerelle bi demoon maa leen séen seen liggéey daal di jaar di def seen D'abord, commencer par présenter mes condoléances les plus émues au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer, nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que cet individu encagoulé ont pris en étau car de transport en commun, communément appelé Tata, les la ligne 65 qui a quitté Kounoun des Sénégalais, des passagers sénégalais. Leur de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement. les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique ce qu'on veut à ses autres concitoyens de religion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, euh, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop de son receveur mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille AFTU je vous remercie